li ñuy wax euh, la pastèque mhm. <coughs> mu nekk benn fruit boo xamante ne ñu bëri ah ñu ngi koy consommer te xamuñu exactement pastèque bi xaal bi maanaam lu muy def ci ci ñun mhm. ndax mi pour xool pour pour commencer la pastèque favorise li di hydratation wu suñu suñu yaram ndax boo xoolee médecin yi dañuy recommander ngay naan un litre voire deux litres d'eau par jour minimum te boo xoolee pastèque bi déjà xaal bi elle contient à 92 d'eau manam matière matière bi yeb mom de manière générale ndox kessé la. 92 mm-hmm. pour cent te boo xoolee ku ko ku ko lekk. maanaam dalay apporter li di 20 pour yow li 20 yi nga soxla woon maanaam ci ci ci ndox. déjà boko nani boko boo goudi bo guddi. Hmm. <laughs> boo ñëwewul seen kër woo guddi ngay dee ci ruq yi ngay boor rek foo jot toog. ndax ndax ñëpp xam ne hydratation daf baaxul. manam hmm. nga nga bañ di naan ndox baaxul. baaxul ndax dèjà da lay indi li di la fatigue ay maux de tête ay crampes da ngay toog sa yaram bi di métti léeg-léeg sax nga bañ a di naan ndox da lay indi li di tension artérielle te xaal bi xaal bi nekk na nekk na loo xamante ne la. Mhm. mën nga xaal moom xam nga ne xaal tubaat fakal la allah ris na. ndox ndox kese la. Mhm. te ku ko faral di di ko di ko utiliser nag maanaam di di nga si gis sa bopp bu baax a baax a baax a mhm. baax te boo xoolee aussi baax na pour mag yi. ndax boo xoolee mag yi dañuy dem ba à un certain à un certain âge dañuy manqué li di potassium vitamine A vitamine B vitamine C te léeg-léeg sax ils sont exposés maanaam ci li di risque de cancer bi ak léeg-léeg sax ñu am ay problème mu cœur te xaal baax na ci ñoom trop trop trop trop te day favoriser li di ñi bëgg ñi bëgg ñi bëgg a perte poids ndax xaal ndox kese la te boo xoolee elle elle contient moins de li li ñuy wax ay calories maanaam xaal boo xoolee ndox kese la te amul ay calories té ba paré day favoriser di di sa digestion man boo ko boo di nga rees. ba pare moom yow di yow yow déjà dina la ab dina la soulager ndax d'une d'une d'une part di nga mën a di dem douche nga dem nga dem soulager wu sa bopp. te boo xoolee aussi boo koy faral di lekk pour ñuy bëgg a perdre poids vite fait boo boo boo jëlee ñaari tranche xaal mooy maanaam boo ko lekkee maanaam yow suur nga dangay ngay suur da ngay suur da ngay suur carrément maanaam day couper sa appétit voilà ndax ndox bi ndax baax na trop ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a perdre te ñi nga xamante ne aussi dañu am ay problème mu peau gis nañ ne li ñuy wax bois de l'eau maanaam ngay naan ndox day rajeunir génnee li di sa sa sa sa pou day day defaral li di sa yaram xaal bi tamit noonu effet boobu noonu tamit la am si yow ak ñi nga xamante ne aussi dañuy am ay problème mu vision comme yow mi sànq yaa ngi doon jàmbat ay problème mu bët. fu ñu toogee boo naa sawa wala sànq <laughs> moom wee rek la jàmmatagul ak karaw. waaw sama wee bi day métteeg sama karaw gi dégguma ko de. continué daal tuf tuf tuf. mu ngi noonu bu pour am problème de de vision aussi xaal baax na trop pour ñoom aussi. Mhm. Mhm. day def day raxas maanaam sa vie sa say bët maanaam di nga di nga. di a di gis ma xaal bi ci digg dëkk bi. waxuma la nga sëlmu de. <laughs> Eh, nay leer nay leer. ah man romb jalo xaal. nay leer dama jënd damay toog di la waxtaanal ba nga may ma benn. Mm. ma dagg xaal ba nga yaakaar damay lekk ma sëlmoo xaal bi. Mm. doxalal Alex sama xarit bi <laughs> ndeysaan dama jëkk dafa donc nag boo xoolee presque lii laa leen indi woon euh, comme les avantages de mhm. de la pastèque mhm. mu nekk loo xamante ne wax dëgg fa yàlla war nañ ko di ko inclure si suñu alimentation ndax déjà comme ni ma ko euh, tijjiwee sànq elle contient à quatre-vingt-douze pour cent d'eau donc xaal moom ko ko xas ba lekk en début de journée wala en fin de journée maanaam yow apport apport apport apport apport lii li la li la ndox doon apporter manam da donc du coup dañ faral di di lekk xaal di ko di ko boole maanaam suñu suñu suñu. sa xarit bee passé ba sama yaay dama jox ñetti xaal yu toll ni man ma ñëw muy nga moom ndeysaan. man daal sama maam daal Alex Alex man sa jabar ma xam mais Bambilor dama dem ndeysaan sama yaay ji baax gën ak maa bëgg tegal ma xaal yi jalal ma may dagg di di lekk rek ah musul am. ak a gën.

A am na vitamine C ba pare day wàññi li di cancer bi ak baax na aussi pour ñi nga xam ne dañuy am problème bu kër wala boo même boo mhm. amulee problème bu cœur sax da nga faral di lekk xaal ndax dina. Mhm. la fekk ngay digérer day fekk nga mhm. digérer <laughs> bon euh, question ah <laughs> parce que euh, man li ma jaaxal mooy xaal lekk ko rek da ngay ndox lu bëri ñi nga xamante ne tey dañoo jabet ñoom li ñuy tuur ndox déjà dafa bëri ndax ñoom tey mën nañ di jëfandikoo xaal ndax du leen sonal ci tuur ndox bi non xaal xaal lañ soloon si tour ndox ndax miam comme ni ma ko waxee sànq rek xaal boo xoolee de de manière générale fruit bi nu mu nu mu composé wu. Mhm. maanaam ak 90% pour cent d'eau donc du coup. amul danger amul danger ndox la te ndox boobu noonu dafa am apport yow déjà yow sa sa yaram dañ la laaj. ngay naan presque chaque jour. Mhm. deux litres d'eau voire trois litres d'eau. Mhm. au maximum yow xaal bi xaal bi ñëw tey boo daggee benn tranche xaal manam yow sa yaram lu noonu laaj pour cent ndox <coughs> bi complété na aliments dina dina donc du coup li di xaal bi mënul lor kii di diabétique bi mhm. wax fa man man a neex mooy digérer bi. Mhm. ma yàlla daal dogal sama fii ngay wax fa wax euh, rek sama non c'est Alex vidéo laay xool naan sama cousine bi démb heure bii biir bi fees na <laughs> ba ma di gérer daaree bi nee naa leen na mën nañ. mais amoo bàkkaar euh, dañuy dañuy togg neex nag moo tax moo tax. binta la koy jox ak amul buñ la koy joxee. moo tax binta binta nga la laaw nee naa ndeysaan man ni duma kaas. <laughs>

noobu la fay dugg ak en tout cas ku bëgg lu baax rek war nga fa dem dugg ci mm-hmm. ndax euh, la xale yi mën a Alexis mm-hmm. Euh, tey tonton Alexis la tey du docteur Alexis tey tonton Alexis mu nekk euh, li nga xamante ni xaal la ñu indiloon tegal ñu ko ci kaw table bi. Mhm. tey moom du ma la posé benn question ndax xam naa ne xaal ak neex-neex nga mu yor rek euh, leneen lu ci yokk rek xëy na sama xel mu naqari bi ma naaje ba ma wax wax dof te du bëgg lool mhm. mais xamal naa la leeru doomu xaal Alexis boo ko war naa <laughs> doom yi doom yi amul loolu muy faj. mais eh attaaya attaaya xaal bi j'espère xam ngeen ko. mooy xott bi noonu def ko bi boobu tam noonu la baaxee dafay faj yow miyaa ma mhm. ne ko ndax doom yi amul dara lu muy faj <laughs> ndax ma taay naa yàbb doomu xaal <laughs> doom bi danga koy doom bi danga koy jàllale rek jàllale ko rek directement Issa jàllale la Issa jàllale danga rawale <laughs> rek waaw damay laajte ndax doom bi amul muy faj. ndax man taaye naa taaye naa ndeysaan sama yaay maa maa ngi lay nuyu Diallo Jéeri euh, Tukulër Aare Racine ndeysaan moom bu jëndee xaal taayal nañoo sax jox di dagg duñu jox nii. Mm. dañu koy defal ci ay assiette yu rafet. jox la sa fourchette bëgg ma tubaab ma <laughs> tubaabe wu ma. yaay ma tubaabe wu ma man sama xel bi dafa naqari waaye Alex duñ ma ko joxee noonu. Mm-hmm. Alex maa xam nga ni <laughs> doom yi du ma ko yàbbee. <laughs> doom yi dama koy jàllale. waaye doom yi boo demee boo demee boo demee nekk nekk yemal ci dem bi rek nekk yemal ci dem bi rek baaba ñaay baaba ñaay boo demee boo demee si baaba ñaay facilité na lu bari bari waay ndax doo doo def doo def sa doole daal naturel lay ñëwee mia mia ngi dee di yow mia ngi instant yi de baaba ñaay bee ko jàpp mia ooy doo def nii sa doole nii xam nga toog lay demaa rek bàyyi mu ñëw mais noonu Alex loolu la ñu indiloon bon à savoir bu nekk li nga xamante Habib moo ngis bi <laughs> Habib ci ne <laughs> ataaya bi Habib mi ngi lay mi ngi lay mi lay dëggal ci li nga xamante moo di ataaya mhm. euh, la ñu indiloon ci li nga xamante moo di Bona ça va tonton Alex yi jaajëfalati naa la sama xarit bi heure boo wàccee rek daal di kenn waaye la nga may tëgal ci taabu daal di doon kaaraange wala boog euh, daal di doon euh, li nga xamante ni moo day intéressé askan wi wala rawatina ñi nga xamante ni dañuy daal di bàyyi xel mhm. ci